Xuzayfatu bnul Yamaan nee na nit ñi dañu doon ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj yiw yoonu mbaax yoonu ajjana nee na man ma di ko laaj musiba yoon bu yóbbu nit safara waaw ma jékki fa jàgg ne ko yonent bi nekkoon nañ ci réer ak i fo yàlla indil ñu la muy lislaam ndax ginnaaw lislaam réer dana amaat yonent bi ne ko waaw waaw dana amaat de mu ne ko ha mu ne waaw mu ne ko ndax ginnaaw réer googu njub dana amaat yonent bi ne ko waaw waaye lu néew lay doon mu ne ko ginnaaw googu lislaam dana amaat mu ne ko dana amaat waaye dana bëri poussière waaw ci boobu lañ nekk islam bu bëri poussière <laughs> boo xamante ni doo xam nooy jullee doo xam nooy jaamoo mooy islaamu poussière kese pënd bi wuri rek waaw kenn ku nekk ni nga ko sentir nga koy defee diine ji daal moom hadis waxatul sunna waxatul maam di way wax loolooy diina jële diinay maam diw maam diw lim fi bàyyi maam diw lim mel maam diw keemaan la keemaan rek ngay dégg waaw dafa mel ni islaam daal dafa ñëw nekk keemaan rek fekk du loolu mu ne gis nga poussière bi dana baru fii daxan mu ne ko waaw lu koy waral mu ne ko ay nit dana ñu ñëw de ku nekk di woote suñu jëmm lañuy ñuy yore suñuy kàddu la ñuy waxee suñu jëmm lañuy yore mooy dañuy solu colug jullit seen kàddu danañuy wax tudd alquran tudd hadis gëmuñu ko dañu koy wax jëme ko feneen yonent bi nee na ku leen topp ay wootekat lañ de ñu ne ko yan wootekat mu ne ilaa baabi jahannam nee na ñu nga buntu safara di xëcc di dugal man ajaabahum ilayha qadafuhu fiha nee na ku leen wuyu ci seen woote yooyu ñu lay woo seen làmmiñ yu neex yooyu seen wax jooju gëmuñ ci dara danañ la tàbbal biir jahannam wallaay danañ la fa tàbbal Xusayfa dem ba wax ci yéem ko ne ko xanaa boobu mbooloo jullit ñi di am mu ne ko ah kay mbooloo yi day bari waaye nag mbooloo yooyu bu ñu baree ba ku nekk di woote faatazil tilka alfiraqa kullaha walaw an taadda ala asli shajaratin xatta yudrikaka almawt wa anta fiha nee na mbooloo yi dana bari waaye yow fa'tazil tilkal firaq mbooloo yooyu sori leen yow ku jóg ut sa ba su bopp sori leen nee na jar na sax nga jëm yéeg ci garab kott ko matt ko xaar fa dee kon loolu bu ko yonent bi waxee lu dëggu la mbokk yi borom bi nag ne kaay leen ma wax leen nee yusabbitu llahu alladina amanu yusabbitu llahu alladina amanu yàlla nee na dana saxalal ñi gëm yàlla nañ ci yàlla boole يلا نانو يلا بولا تي اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله يلا نيو يلا ماي سونو مود كادو نيك لا اله الا الله يلا نيو يلا ماي سونو مود كادو نيك محمد رسول الله ني يلا ني دانا سخلال نيغم يلا بالقول الثابت موي بان لا اله الا الله يلا ني دانا كو ماي سما جامي تي بير بامل ادنا ni ñu ko dundee ci àdduna lañ koy dundee ci bàmmeel yàlla nañ ko yàlla may allahu akbar mbokk yi la ilaha illa allah hiya al urwatu al wusqa allati la nfisama laha mooy buum bu dëgër bi dul ferencciku mooy la ilaha illa allah jamais du ferencciku jàpp ci nu ko nit ñi tuddee jàppal yow waaye fexel ba baat boobu nga jéem a jàng lan lay tekki lan la la ilaha illa allah di tekki soxlawul nga di ko sikkar di ko way di tëb di ko fecc déedéet laa ilaha illallah ëpp nañu koy feccal waaye jëfee ko lañ soxla ngir nga jëfee baat bi xam lan la baat bi tekki soo ko jëfee ci kaw suuf wallahi di nga yëg ni borom personnalité la te keneen ki nekk ci leneen dana la ñee doonte mënta ak si ci yow coow lee bëri mais gars yi xam nañ de dofu dofu ñu de xam nañ fi mbir yi ne de dofu ñu jinne jàpp leen wax jooju nag nekk bil qawli sabit ci xayaatu dunya da nga koy dund nee na yemu ca de wa fil axira ak al'axira soo duggee bàmmeel su malaaka yi nee tëll xool la seen xol sedd danañ la laaj comme ni ñuy laajee nit ñi waaye borom bi ne maay dëgëral sa kàddu doo tiit doo raf doo jaaxle suñ la nee man rabbuka nga ne allahu rabbi yàlla mooy sama borom yàlla nañ ko yàlla defal maa diinuka islaamu diini yàlla nañ ko yàlla defal wa ma kitaabuka quranu kitaabi maada kunta taqul fi hada rajul ma ne huwa rasulullah allahu akbar kàddu googu ku dugg bàmmeel te dundoo woon laa ilaha illallah doo tontu bu yaboo nag na mag ñépp dajaloo def gaal yeewu la ci yóbbu àjjan ndax danañ la mën a yóbbu munuñ ko ndax kenn ku nekk ci ñun am nga lu la doy kullu nafsin bima kasabat rahina yàlla nee na kenn ku nekk la nga def yaa koy garanti kullu nafsin bi ma kasabat rahina wallahi kullu nafsin bi ma kasabat rahina loo def yaa koy garanti kenn du ñëw ni diwa la ko defloo diwa ma ko defloo amul ci bàmmeel diw laa toppoon amul ci bàmmeel li nga def lañu lay fay yaa ko rendi sa loxo lay nàcc kon nag loolu di laa ilaha illallah fii nga koy dund ci àdduna nga deewaalee ko yàlla may la texe yàlla nañ ko yàlla defal mbokk yi lan moo gën a neex di génn àdduna di jàng alquran allahu akbar di génn àdduna di jàng alquran dañoo am suñu benn góor su ma ko fàttalikoo rek sama yaram day daw góor gi dafa feebar lu yàgg nekk ci sukkuraan day xëm ba ci yàgg rek waa kër gi tiit daw ñu ñu wooyi ma biñ ma wooyee daw ndeysaan fekk man maa ngi nekkoon ci ci biti man ak yeneen xale foofu ñuy futbal foofu rek ndeysaan meer bi ña ma diw kaay kaay kaay kaay xool sa papa ji ñu ñëw ndeysaan góor gi yaasin la tudd góor gi yaasin Mouhamad Yaasin Diallo noonu la tudd ndeysaan mu ñëw fekk góor gi billahi alladi laa ilaha gayru iqtarabati saatu wanshaqa alqamar nii la def loxo bi ci li ma dégg moom jàng na ko ñetti yoon jàng na ko ñetti yoon ne tekk loxo bi def nii ma di ko xool ba càgg ne meer bi jox ma morso mu jox ma morso ak siwo ba jaaga rek loxo bi wàcc maire bi ne ma xanaa dem na ma ne ko dem na dem bu rafet maire bi dëpp jëm ci suuf sujjóot allahu akbar dëpp jëm ci suuf ne ma sa papa ji duma ko joy ma ne ko wa maire lu do ko joy mu ne li ma nekk ak moom ci feebar bi yépp chaque jour léeg daf ma naan mariam man naa ma xoolal ñu rafet ñii ne may xool duma gis mu naa ma jëmm yi mosuma gis yu mel nii Mariam lan moo ko ko may quraan guddeeg bëccëg wallahi kaana quraanan yadubbu ala al ard góor gi da daan jàng alquran fu mu toll loolu la ko yàlla fayee ay déedéet keneen it loolu di musicien bi it loolu lañ koy fay de del dee di mbalax rek wala nga dee bokk a nga xool même ñi ne ci caaxaan xam nañ ñi baaxut bugguñu ko de ñi na ci caaxaan kenn buggul dee ci caaxaan موتخ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يلا نكو يلا دفل